يا لائلي أنشق بتحسيمي يوم قروجي شيقنا القديم mbokk jullit yi mbokk talibe yi ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ci kilifte fu Serigne Abou Mbacké Falilou xalifa Serigne Falilou Mbacké Khadim Rassoul Serigne Cheikh Jorel Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro Mbacké ak mboolem njabootu Serigne Cheikh Thioro Mbacké ñoo am mbégte di fàttali di yëgle ak di woote màggaluk Mbacké Bari Jolof di bésu fàttaliku damuk Serigne Touba ci yoonu géej ren amal fukki fan ci weeru août 2023 muy 23e édition bi ñuy ñaan kuréelu xasida yi daara alxuraan yi daayira yi jumaa yi ak yi fu ñu mënti nekk lu nu mën ci jàng alxuraan ak xasida ñu def ko addiya Serigne Touba programme bi bu nu xëyee jàngum alxuraan ak ba ñu amal waxtaanu dine wu am solo ci Serigne bi kat ya Serigne ganna mesere ak yeneeni borom xam-xam danañ fa amal itam ab exposition Serigne Cheikh Jorel Mbacke ak mboolem njabootuk Serigne Cheikh Thioro Mbacke di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbacke Mbusoobe waa afe ñu bokkal mam maram cheikh yi rawatina ñi ku tedd ki tarbiya seen mam ca Mbacke Bari Jolof njabootuk mam Balla Aïssa ak mboolem njabootuk mam Anta Sali beral wote njabootuk Serigne Cheikh Absa Mbacke khalifa soba di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Cheikh Gawane ñu ciy Dim Aydara ak waa Ndongadu Chérif Tislim Aydara Dara Jolof Serigne Cheikh Fati Niang ak waa kër Mame Gor Sani Niang Serigne Cheikh Tidiane Sy xalifa Mérina Sy njabootu Alaaji Daouda Jambalaxe waa Sine Abdou Serigne Cheikh Ndiaye xalifa Serigne Ousmane Ndiaye Alaaji Seybani Niang xol-xol Alaaji Abdou Ndiaye Kadji Serigne Dame Ndiaye ak kuréelu Mbacké Bari Bolo mi liggéeyal Serigne Falilou ci Ndakaaru ci njiital Alaaji Mat Thiane Alaaji Makhtar ak Wa Darou Salam Melax waa Isbu Tarxiya ci njiital Serigne Youssou Diop Serigne Moustapha Diegane Ndiaye ak njabootu Samba Lawbe Ndiaye ak njabootu Sidi Al Jabotuk Ndiaye jabootuk Alburi Pendam Boya, Jabotuk Alburi seynabu Jabotuk Toubé Mbaba Nguy son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal premier ministre Amadou Ba ministre de l'Intérieur Félix Antoine diom ministre Ali Nguy njay ministre Samba Ndiobène gouverneur Louga préfet bu Linguère sous-préfet bu secrétaire Djolof maître Amadou Ka président conseil départemental Linguère Moussa njay maire bu Thiamène Pass sox Koumba Diaw maire bu secrétaire Djolof Ousmane Sonko président Pastef honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacké bok ci kër gi ak mboolem ñu mu seqal langu politique gi mboolem député yi ci Assemblée nationale El malik njay Pastef Dara responsable politique politique ci nguur gi ak ci opposition bi bés baa ngoog màggalug Mbàkke Bari Jolof 23e édition bi fukki fan ci weeru août 2023 ñu ciy ñaanal ak fàttaliku Serigne Maxtaar Mbàkke ibn Maam Cerno ibn Serigne Cheikh Absa ak Serigne Cheikh Ndiaye Mbàkke Bari nekkoon Bari Serigne Cheikh Joreel Mbàkke xalifa Serigne Cheikh Coro Mbàkke ak mboolem bokk jullit yëpp asalaamu aleykum wa taala wa barakatu